asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu ñu ngi nëpp ñu ngi nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitro leen wax ne journée bi déggu leen ma nag dafa amoon benn réunion bu ma doon xaar réunion bi pare na euh, information bu ma ci am à chaud moom laa leen di wax rek après ñu jàll ci leneen fu nekk nii euh, dañuy xeex ak benn camp adverse il faut ñu leen di suivre di suivre seen pas et tout donc euh, li ñu leen di xamal lenn kese la. réunion bi nag mi ngi doog a pare euh, mooy Macky Sall ak euh, chefu police yi chefu gendarme bi ak euh, même armée ak ñeneen ak ñeneen ay autorité ci biir waxtaan bi Macky wax na leen ne leen gisul lenn lu koy mun a teree jël Ousmane Sonko dóor ko ci kaso bi loolu mooy waxam bu leen wax nee na leen je mettrai et j'arrêterai Ousmane Sonko et je le mettrai en prison contre vents et marées gisuma lenn lu may mën a tere jël Ousmane Sonko dugal ko ci kaso bi lu ma koy teree gisuguma ko donc ngeen jàppee ko noonu ngeen xam ni ki ñuy amal affaire yàgg nañ leen ko wax dëgër na bopp wow la na du arrière du reculer kuy xeex ak kooku nag boo arrière dee boo reculer dee boo xefee dee boo xippee dee saa su ne lii daf ñoo dal dalatiñu ñu saa suñ jógee di xeex ak Macky bu ñu taxawee moom moo ñuy song dugg suñu kër yi jàpp suñu papa yi jàpp suñu yaay jàpp suñu frères yi jàpp suñu sœurs yi jàpp suñu mbindaan yi lii yàgg nañoo dal ñun nag mënuñu doon ay jig jigéen lu ñu dal démb dalaat ñu tey saa yu ñu jógee Macky Sall dina rey ci ñun jàpp ci ñun bu ñu taxawee mu fekk suñu suñu biir kër yi di ñu loqati suñu biir kër yi di ñu jàpp di ñu tëj ci kaso yi donc loolu waratuñu dal parce que il faut ñu yeewu ci mbir yi wax nañ leen ko waxati leen ko Ousmane Sonko wax na leen ko wax naa leen ko keneen ak wax nañ leen ko bàyyi leen bëreet mooy jóg tàmbali taxaw ma ne gis nga li fi am tey suba bu amul ginnaaw suba maa la waatal ci yàlla na Macky Sall dina dugg ci biir kër yi. waxoon naa leen ko Ousmane Sonko wax na leen ko waxoon naa leen ni Macky Sall dafa am ay caméra yu mu topp nit yi di leen visionné di leen xool di leen noté nañ leen ñoom ñëpp mais tant que dëkk baa ngi tàkk di boy du am fitu dugg ci kër yi di jàpp mais gis nga liñ commencé nii bés bu ñu taxawee ku nekk ci ñun Macky Sall dina la fekk sa biir kër këf sa baay këf sa yaay këf say mindaan këf say doom këf say ñëpp noq leen ci kaso yi donc li ñu tàmbale bu ñu ko bàyyi tey bu ñu ko bàyyi suba bu ñu ko bàyyi ginnaaw suba ñu ni ci gën a ànd ak détermination nañ ci gën a ànd ak conviction nañ ci gën a ànd ak révolte indignation nañ ci gën a ànd ak xatar ni ak fitu gaynde Macky Sall nee na tey jii ci réunion bi nga xam ni sànq la pare sànq la jeex presque vingt trois heures heure de dakaar dóor na ci table bi nee na gisul lu koy teree bañ a dugal Ousmane Sonko ci kaso bi de source sûre laa leen di leen bu baax li ma leen wax ngeen noté ngeen noté bu baax tey laa leen ko wax nii man moom damay génn nag ne bëreet wax bàyyi leen xel ci li ma leen wax man moom samay wax jali muus la da ngay waxee rek gis day amul coow coow ak coow nekku ci wax ju bëri new ma ci. Macky Sall nee gisul lu koy tere bañ a dugal Ousmane Sonko ci kaso bi Macky Sall nee na gisul lu koy tere bañ a dugal Ousmane Sonko ci kaso bi. instant yi nag ñi ngi nekk di wër Ousmane Sonko parce que moom gëmul ni usmaan Sonko mi ngi këram boobu ñi ngi nekk ci wër Ousmane Sonko ñi ngi nekk ci wër Ousmane Sonko ñoom Macky Sall et sa ñi ngi nekk ci wër Ousmane Sonko am na sax ñu dugg ci côté bois sacré bi am na ñu ñu yóbbu ci côté bois sacré bi pour ñu dem xooli ñu ngi wër Ousmane Sonko ñoom nee nañ Ousmane Sonko nekkul ci kër googu gaa yi wër si seen wax nee nañ nekkul ci kër googu gars yi wër Ousmane Sonko nekkul foofu ñoom ñoo wax loolu gouvernement bi donc ñoom ñi ngi nekk di wër Ousmane Sonko ñi ngi nekk di wër Ousmane Sonko nee nañ bés bu ñu ko tegee loxo Ousmane Sonko ci kaso bii la jëm donc loolu nag luñ ci am information boobu noonu luñ a chaud lañ ko am ñëw jox leen ngeen téye ko noonu te bañ a bàyyi fi ngeen jàpp bañ a bàyyi fi ngeen jàpp taxaw leen ci fi ngeen nekk. dëkk bi yëpp macha allah Kaolack gaa ngi boy Saint-Louis ngi boy Diourbel ngi boy Diourbel gisaguma ko du ma ma wax lu ma xamut Diourbel gisaguma leen Saint-Louis de toute façon mi ngi boy boy na takk jëppeet Ndakaaru Njaay jël Jóob mi ngi tàkk jëppeet Ziguinchor a ngay tàkk jëppeet Kaolack a ngay takk jëppeet Tamba gisaguma ko mënu ma cee wax dara ku fi ku kenn du fi ku jëful du la waxal ñëpp gis nañ seen bët Kaolack ñëpp gis nañ seen bët Saint-Louis ñëpp gisal nañ seen bët Ziguinchor ñëpp gisal nañ seen seen bët Ndakaaru Njaay Jal Jóob kenn gisagul euh, Louga ñëpp gis nañ seen bët Louga kenn gisagul Jurbel kenn gisagul Thiès donc kenn du leen waxal pour l'instant ñooy nekk ndaare ndaare buntu kus ndaa nu bambare na ndaare booda ndaare booda jamono ji moom ndaare boodaa bi Thiès gisaguñ ko gisaguñu Diourbel et cetera et cetera donc gis nañ Mbàkke mi ngi tàng donc lu ñu leen di xamal daal moom mooy taxaw leen fi ngeen taxaw bañ a bàyyi Macky Sall nee na du bàyyi ci li mu jàpp nee na lu koy tere dugal Ousmane Sonko ci kaso bi gisu ko lu koy tere dugal Ousmane Sonko ci kaso bi gisu ko loolu la Macky Sall wax ñi nag naan ay Macky Sall xawma jabaram daw na ak doomam du dëgg jabaram ak doomam ñi ngi foofu Sénégal nay leer ci seen nopp Macky Sall jabaram a ngi Sénégal doomam a ngi Sénégal kenn bougé gu fa na affaire yi gën a tàng na affaire yi gën a boy na affaire yi gën a saf bës boo leen teggee seen tànk loolu laa leen waxoon deux mille vingt et boo leen teggee seen tànk dee ma ne la wallaahi billaahi boo leen teggee seen tànk faatu boo leen teggee seen tànk seen bàyyi yi dinañ dugg ci kaso yi seen yaay yi dinañ dugg ci kaso yi seen sœur yi dinañ dugg ci kaso yi seen frère yi fees dell ci kaso yi ma ngay ñëw Macky Sall la ngay ñëw léegi nag loolu c'est le au peuple sénégalais wax ko ni da ngay fen nuñ ko koy waxee du ay wax jëf nee na moom dina dugal Sonko ci kaso bi ñu ne ko doo fi dugal Sonko ci kaso bi tàmbali nañ ko nag duñ ko taxaw te loolu Sonko la leen waxoon boo leen tàmbalee bàyyi leen di taxaw di taxaw di engagé di taxaw loolu wóorul parce que surtout gën di xeex ak koo xam ni saa yoo leen taxawee mu song leen loolu xeexu Macky Sall la boo leen di tàngal day daan tekk fu mu nekk nii Macky Sall gaa yi Macky Sall la ngi ne tekk boo leen arrêté gis ko Macky Sall demoo la booy tàngal safara la ragal boo tàngalee safara day daw bukki la booy tàngal safara day daw boo arrêté safara bi dalay songu loolu bukki jikko bukki mooy def noonu jikko bukki mooy def noonu bukki noonu lay def boo taalee safara du fa jege boo fayee safara bi dalay songu te day këf say xuur yoo baale donc loolu na ci ñëpp bàyyi xel tàmbalee nañ mbir yi amul taxaw jusqu'à la victoire finale bu ko defee trois jours non stop tegale ko ci ah dañuy am ndam te tamit waruñu trahir les morts les morts bu ñu leen fàtte y a eu a moor ci affaire Adji Sarr te tamit jox naa leen numéro bi na ngeen ci barkeelu dégg naa sama photo la fa dugal na ngeen ci barkeelu bu baax psychologiquement elle attent lu leer laa leen teg psychologiquement Adji Sarr est atteinte appel yi ko gars yi di woo ci kaaw bi di saaga ndayam di ko menacer di wax wax jooju noonu elle est sama photo la dem dugal foofu noonu sama photo Facebook bi la dem télécharger dem dugal mais nous on s'en fout on est en guerre bu buñ ko njëkkee song fii photo Ousmane Sonko la fa dugal tey sama photo la fa dugal garaaw waree fa on s'en fout song leen bu kenn bàyyi fépp attaque tout bord mbedd mi lañuy tàngal ba mu saf ñu doog a dem ci kër yi jamono jii bu fi kenn réclamer kër mënuñu nekk au four et au nañu matal mbedd mi ba mu rumbax nañ ko mokkal ba mu mokk rumbax ñu doog a song seen kër yi tant que mbedd mi mokkul rumbax duñ song seen kër yi instant yi gis nañ seen kër yi xam nañ seen kër yi xam nañ seen kër yi bàyyi juge yeeg yëpp repéré nañ seen kër yi euh, le chef de gendarmerie bi repéré nañ seen kër ñoom ñëpp ku nekk repéré nañ seen biir Sénégal lañ nekk dëkk ci biir dëkk bi dëkk ak ñun ci biir dëkk bi xam nañ leen kenn rëccuñu mais balaa ñoo wax waxu kër nañ rëm mbax mbedd mi ba mu nekk rum def ko xal ak doomu taal na mbedd mi doon xal ak doomu taal na mbedd mi doon jihaad xal ak doomu taal bu tàng jër laal lakk dee taxaw dee ruy bu ñu paree nag ñu doog a song seen biir kër yi à l'attaque bu boobaa nag mbedd mi rëmbax na kër yi la ñuy attaqué donc loolu mooy stratégie bi pour pour l'instant nekkuñu ci taali kër après kër après mbedd mi bu ñu taalee mbedd mi ba mu jeex tàkk dañuy song kër yi du ñu arrêté këru Moustapha Diop ñi ngi ñëw incha allah Louga lépp la ñuy boyal amul am amul weerante amul dellu ginnaaw amul dara à l'attaque donc pour l'instant les gars sol chers soldats big up one love much love and thanks bu leen bàyyi nañ teg fu ñu teg sañ tànk foofu la bu ñu dellu ginnaaw bu ñu yëkkati bu ñu yëkkati dee bu ñu bàyyee dee bu ñu taxawee dee bu ñu nelawee dee bu ñu gëmmee dee bu ñu toogee dee na leen leer ki ñu amal affaire rancune la bon xol la du bu ñu taxawee dee bu ñu toogee dee bu ñu arrêté dee bu ñu noppee dee bu ñuy nalaw dee loolu laa la wax sauver ou périr loolu mooy mission bi sauver ou périr on va sauver le Sénégal ou périr on va sauver le soldat Ousmane Sonko ou périr sauver c'est mission sauver ou périr donc sama gars yi li ñu daloon bu ñu dalaat di xeex di ko tàmbalee di ko arrêté bu boobaa Macky Sall bu ñëwee dina yóbbu ba yóbbu sañuy euh, di fa bàyyi dara dina yóbbu ba yóbbu sañuy mala dina dina taal suñu kër yi kon nay leer naññ léegi nag lii nag moom mooy dernière nouvelle tey tey tey tey sànq information bu ma ko jotee à chaud laa ñëw defal leen live bu ma nee waa ji kon Macky Sall dafa déterminé mu ne ma booy wallaahi euh, kilifa gi dafa déterminé wu. nee na gisul luy tere man nee na moom bu bu Macky Sall di wax loolu da ko dafa tiit ak lu fi am parce que dañ ko indi rapport li am journée bi dañ ko indi rapport au lieu mu xool rapport bi xool day arrière wala du arrière déedéet wax. arrièreul de rapport journalier bi bu ñu ko ko indilee rapport journalier bi bu ñu ko indilee daf ne amul lu koy tere daf ne amul lu koy tere jël Ousmane Sonko dugal ko ci kaso bi amul lu koy tere jël Ousmane Sonko dugal ko ci kaso bi gisul loolu nee na contre vents et marées malgré rapport bi ñu ko indil moom nee na contre vents et marées gisul lu koy tere dugal Ousmane Sonko ci kaso bi loolu la leen wax boo leen gisee ba léegi amagul réplique gars yi ñu ngi foofu fees nañ dell Casamance dañoo dem ba nee nañ gis nañ ni kër gi Ousmane Sonko nekku fa moom moo tax gisagu leen ñu dem a songu kër gi wàcc fa wala dajj kër gi yooyu parce que nee nañ ñoom bu ñu duggee foofu Ousmane Sonko nekku fa. donc xaw nan la ñuy foofu mais ñoom nee nañ ci seen réunion Ousmane Sonko nekku fa donc Sénégal pare leen li ñu tàmbali na gën intensifié wu na gën a yokk na gën a saf na gën a tulleeg male région yi nga xam ni tey yënguwul nañ jóg région yi yëngoogul nañu jóg région yu tàmbale nañ ko gën a dàbbali région yi ci nekk nag ndakaaru njaay ak Ziguinchor moom ñoo jëlagum pay ci affaire bi manifestation yi jamono ji ndakaaru njaay ak euh, Ziguinchor ñoo nekk exaco jamono ji kenn xamul ku ci nekk yaa ngi bu examen amoon ñoom fu nekk nii dem nañ dofis kenn mënu leen te examen bi réussir gum nañ ko réussir nañ ko premier étape bi ndakaaru njaay jal jóob réussir nañ ko Ziguinchor réussir nañ ko yeneen région yi ñi ngi ay 4 virgule cinq pour cent lañ am Kaolack mi ngi ay 3 virgule cinq pour cent yeneen région yi daal maanaam kenn amagu ci sax cinq pour cent kon nag na na gën a jaljali na gën a saf sap sama bu leen fàtte loolu après euh, juge yi nga xam ne ñoom la ñu wax ñëw décider pour liquider Ousmane Sonko am nañ seen adresse am nañ seen kër yi am nañ seen kër yi waajur am nañ lépp ñu ngi taxaw di xaar bu mokkale mbedd bi ba mokk rumbax ci ñetti fan ultimatum ñu dem nag commencé song seen biir kër yi dugg seen biir kër yi ñu seen njaboot yi gis ñu ñu wan leen ni ñun ñoo fi jaar bàyyi fa trace boo xam ni din ñoom duñ leen ci bàyyi xel bu ëllëgee bu seen doom naree def sale boulot pour éliminer wala liquider un leader politique dinañ seen famille dinañ dinañ réfléchir dix mille fois avant ñoo bàyyi seen doomu xaram bu ñu jur di nga xam ni mooy dem di sacrifier ay yeneen doomu jàmbur parce que fii doom foo koo fi gis doomu jàmbur la kon seen yaay yi dem jur xaju xaraam yooyu ba ñuy liquider yeneen doomu jàmbur yeneen doomu jàmbur ñooñu buñ bu ñu ëllëgee bu ñu fa jaaree seen biir kër yi ba bàyyi fa tampon guerrier bu ëllëgee bu kuñ fi gisati juste ñu fi gis muy jóg naan day def sale bulo bu boobaa sa yaay dina la woo sa baay dina la woo say frère nañ la woo say sœur say mbokk nañ la woo say am di jàmm nañ la woo ne la génnal ci lii génnal ci lii génnal ci lii parce que dégâts yi dafa bëri te sénégalais yi bu ñu màbbee du ñu taxaw kon nag chers sénégalais encore in fois ñu ñaanal ñi nga xam ni dañoo faatu ci suñu xeex bi amagum nañ ci quatre yi nga xam ni nii nii nii ci xeex bi dee nañ ci jë jër nañ ci ñaar tiire leen à bout portant sànq léegi am na benn soldat jàmbaar manifestant boo xam ni à bout portant lañ ko dóor bal Kër Massar ci dënn yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana mi ngi noonu deretam tooy xepp boo demee Kër Massar Kër Mbay Fall Kër Massar ma nga fa tëdd gendarme yi ñoo ko tiré à bout portant donc kooku muy suñu soldat bi nga xam ni manifestant la ci ñun la euh, bokkoon daanu na rod na bakkanam euh, suñu borom jël na ko di ko ñaan yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana yàlla moom li mu bëggoon ba nekk ci xeex boobu ba buggoon loolu am yàlla na ko sotti même bu ko fekkewul yàlla na sotteek jàmm yéene gi mu amoon ba génn di xeex di xare bañ dóor ko balu fetal mu rot mel ni malaw yi ñuy rey ah li mu yaakaar ba mu amoon ak yéene gi mu amoon pour sa jeunesse pour sa nation yàlla na ko yàlla sottil di wax leen ni encore am na keneen ki nga xam ne moom it euh, tiire nañ ko bal euh, mu dee Ziguinchor jamono jii ñuy wax nii ci tàng-tàng bi euh, tiire nañ ci Ziguinchor comme ça sune Euh, rey nañ fa aussi benn jeune sénégalais booy moyen d'âge vingt vingt cinq ans rey nañ fa beneen soldat maanaam beneen manifestant tiré nañ ko à bout portant ci bopp bal ba troué ma nga noonu deret ba tuuru di fendeegut tooy xepp ma nga ca euh, fu nekk ni fa yàllaahu donc di leen xamal ne am na ñaari soldats yi nga xam ni maanaam ñaari manifestants yu Macky Sall la police et la gendarmerie les force de défence et de sécurité rey nañ suñu deux soldats tiré nañ leen ay balu fetal yu ñu encaissé ba ñu rot kon ñu ñaane leen yàlla leen yàlla yërëm te xaare leen ajjana te ñun it ñun ñi ñuy fa bàyyi du ñuy ay traître duñu trahir cette mission on va continuer cette mission deret bi du fend ci suñuy suufu tànk loolu buñ seetaan ko wor la donc na sénégalais gën a taxaw ñu euh, laver l'affront ñi ñu rey ñoom tey euh, instant yi am na aussi fàttewuma ko benn gendarme boo xam ni moom daa dee euh, comme ni koy defee benn auto police bi moo jaar ci kawam mu faatu baayam nag gendarme boobu policier boobu noonu nga xam ni faatu na baayam léegi la daanu malaise moom it faatu na donc am nañ ñeenti solda ñeenti soldat euh, gendarme policier bi nga xam ni oto euh, police bi moom moo ko moo jaar ci kawam mu faatu sedd guy baayam sànq di leen xamal ni mujj na faatu parce que baayam daanu na malaise sedd guy di caddi caddi ba sedd guy ndax doomam ci ni mu dee te lépp Macky Sall ba léegi déggu leen doom ju dee wala baay ju dee wala jarbaat ju dee wala sët ju dee ñun rek ñooy dee. parce que waxoon naa leen ko ne leen gendarme yi delloo leen seen xel policiers yi force de défense et de sécurité delloo leen seen xel koo leen rey yéen a dëjël koo leen rey ñun ñoo leen di dëjël te bu leen reyee rek ñun ñoo leen di dëjël gis ngeen loolu ki nga xam ni dee na xool leen baaja baaja yoru lekkut naanu tey ma nga noonu caddi caddi daanu malaise ba sedd guy te du ko seeti du ko lijjanti faalewu ko donc doom ja dee na baay ja na rey nañ am encore ñooñu noonu nga xam ni doom ja mooy dee ak baay de doom jooju noonu ay moroomam rey nañ ñaar ci ñun donc y' a quatre morts donc l' affaire Adji bu ñu mënee compter y' avait quatorze morts Didier Badji ci affaire aji Sarr lañ ko rey muy quinze Fulbert Sambou muy seize hmm, François Mancabou muy dix-sept Idrissa Goudiaby bu leen fàtte muy dix-huit ñu rey. Euh, kenn beneen booy ci Casamance muy 19 ñu rey benn booy bi nga xam ni ginnaaw Masaalikul naan lañ ko fekkoon carboniser ko dóor ko lacrymogène mu wow kong mu mu mu xëm ba wow kong donc on a 20 morts Adji Sarr yóbbu na pour l'instant 20 bakkanu doomu aadama l'affaire Adji Sarr 20 bakkanu doomu aadama rot nañ ci l'affaire Adji Sarr vingt doomu aadama vingt doomu jàmbur yi Macky Sall rey na leen ci l'affaire Adji Sarr donc dépassé nañ quatorze quatorze c'était en deux mille vingt et bu ñu paree quatorze dañ cee teg ki nga xam ni mooy Idrissa Goudiaby ak beneen boy bu nekk Casamance ñaar lañ rayoon muy ñaata muy seize ñu teg ci euh, euh, François Mancabou muy dix-sept Fulbert Sambou muy dix-huit voilà Abdoulaye Diatta Abdoulaye Diatta 14 la woon ñu rey Idrissa Goudiaby muy muy ñaata 15 Abdoulaye Diatta Bignona muy 16 ñu rey eh, François bu muy 17 ñu rey Didier Badji muy 18 ñu rey Fulbert Sambou muy 19 ñu rey ki nga xam ni moom mooy après Fulbert Sambou ki nga xam ni moom mooy booy bi nga xam ni moo nekkoon ginnaaw. Euh, euh, euh, mosquée Masaalikul Jinaan yéen a ngi fàttaliku bañ calciné corps bi muy 20 ak tey jii kaat yi muy 24 donc affaire aji Sarr yóbbu na 24 personnes 24 personnes yi nga xam ni Macky faat na leen rey na leen l' affaire mun am na ñeneen ñu mu rey mais l' affaire Adji Sarr parce que lafaire Ngor jigéen ku mu rey c' est vrai. Euh, yàlla na ko yàlla yéen te xaaree ko àjjana Macky Sall ka rey boobu affaire ngor la mais ci la bokk parce que décédé décédé décès la rey la assassinat la donc bu ñu ko fàttee encore une fois am nañ plus de vingt quatre morts vingt quatre morts mais l'affaire Adji Sarr c'est vingt quatre morts vingt quatre morts bu leen waxati quatorze quatorze c'est ne pas respecter ñet la mémoire des autres yi Macky Sall rey kon affaire Adji Sarr dépassé na quatorze morts dépassé na parce que kenn du compter guerre mondiale 14 18 39 45 bu ko compter kese ñi dee ci 14 18. quarante cinq tam ci guerre mondiale yi la donc affaire Adji Sarr moo nekk ba léegi 24 morts 24 morts 24 doomu aadama la Adji Sarr yóbbu moo ak Macky en complicité donc loolu ñu bàyyi ci xel ak ñeneen ñi nga xam ni ray nañ leen ci yeneen ay korkaka bu ñu reyee fële ak ndaw si xale bu ndaw bi Adja euh, kii bu ñu rey fii moom tamit aji euh, comment dirais bu ñu rey fii ci Ngor donc encore une fois les gars u continue le combat on lâche pas l'affaire parce que Macky Sall bàyyeegul Ousmane Sonko teggeegu ko tànk ma ko topp ña ngi koy surveiller ña nga fees dell Casamance gis yéen génnuñu attaqué wuñu songuñu ñi ngi fa pourtant demuñu ñibbi de ña nga fa ba léegi donc ña ngay wër Ousmane Sonko ña ngay wër Ousmane Sonko na gën a tàng Ziguinchor jóg leen taxaw leen bu leen boo leen di xaar kër googu noonu gars yi dugg fa nee nañ Ousmane Sonko nekk fa ñoom autorités yi nee nañ Ousmane Sonko nekk fa donc ñoom ña ngay wëri Ousmane Sonko ña biir Casamance di wëri Ousmane Sonko ñii tasaaroo nañ leen ñi yóbbu leen ci bois sacré ba ñii ñi ngi ci foore ba ñu ña nga tasaaroo nee nañ ña ngay wëri ci Ousmane Sonko te Macky Sall nee na leen nañ leen ko indil mu nañ ko indil indil Ousmane Sonko parce que da koy dóor ci kaso bi kon ko waa ji bàyyeegul tey bàyyeegul suba nañ pare nañ gën a taxaw nañ gën a déterminé wu bañ a bàyyi dara nekk ci encore légal gars on lâche pas l'affaire on lâche pas l'affaire on lâche lu ñu daloon bu ñu dalaat di xeex di bàyyi di demee demi mesure di song di matt di ëf wala di matt di bàyyi ah lu ñu ci fekk rek bu boobaa ñoon kon comme tàmbale nañ affaire yi nag on lâche pas l'affaire buñ ko tegee tambour battant tant que Macky Sall waxut jàpp leen ñi ngi koy dóor bu ñu arrêté na nga dégg Macky Sall day génn mais fu nekk nii Macky Sall mi ngi réunion Macky Sall demul fenn mi ngi ndakaaru njaay jël jóg ak njabootam ña ngay ci réunion léegi lañ pare seen réunion léegi léegi lañ pare seen réunion même pas même pas deux heures de temps minuit minuit une heure ñu ngi woon si seen réunion Macky Sall ak mu nekkal ak police beeg ñoom ñëpp ak ñu fa nekkul ñu ay appel ñoom ñëpp réunion nañ ba pare te lu leen wax loolu la indil leen ma Ousmane Sonko et je le mettrai en prison je le mettrai en prison loolu la je le mettrai en prison contre vents et des termes qu'il utilise contre vents et marées rien ne pourra m'arrêter je mettrai Ousmane Sonko en prison donc kon cher sénégalais loolu moo ñu tax ñuy xeex parce que duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba duñ nangu cette injustice jaayum doole jàpp sa opposant ne diñ ko toroxal diñ ko yóbbu toroxal ko dóor ko ci kaso bi loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba te duñu dund muy am kon nag les gars soyez prêts soyez ready nekk leen ci bu leen bàyyi te encore xeex bi aussi c'est psychologique c'est physique c'est pratique c'est systématique c'est stratégique ñi ngi kontaan ci yéen parce que li ñu leen di wax yéen a ngi koy def li ñu leen di wax ñi ngi gis ni yéen a ngi koy def démb bu ma leen waxee ni tey xeex la tey ñëpp génn nañ xeex à l'unanimité ñëpp génn nañ xeex bu ñu leen waxee ni fii la fii la bu ñu leen waxee ni fee fee parce que dañuy déglu information yi di jox leen par rapport ñun tam nu ñuy xeexee parce que du ñuy xeex rek di tëñëx tëñëx dañuy xeex di leen dégluwaale di xool seen i pexe di wut fa ay information di xam ñoom lan la ñuy jéem ak ci lan la ñuy dox parce que ñëpp jàppoon nañ ni ci biir kër googu la ñu war a wàcc pour attaquer ñoom tey nee nañ nekkul Ousmane Sonko nekkul ci biir kër googu comme ñoom nee nañ Ousmane Sonko nekkul ci biir kër ñu propagé wu biir Casamance di ko wëri donc ñun tamit nañ tasaaroo comme ñoom jaxasoo ak ñoom di xeexaak ak ñoom duñu leen may benn marge benn marge duñu leen ko may de manœuvre benn marge de manœuvre duñu leen ko may ba ñuy am temps naan dañuy xalaat wala naan dañ koy wër naan dañ koy jàpp ba naan dañ koy jox convocation wala mu ñëw ñu jël si ko donc lépp peuple bi ñoo ko mën a arrêté ñoo ko mën a yeexal ñoo ko mën a lépp ci peuple bi la dépendre kon les gars encore une fois félicitations di ko wax ñi nga xam ni xeex nañ tey taxaw nañ jafunu reyante ah, di wax ñi nga xam ne nag jógaguñ nañuy jóg ndax xeex bi xeexu nation bi la xeexu Sénégal la xeex pour libéra libération la xeex pour am jàmm ci suñu réew xeex pour retrouver suñuy droit xeex pour libérer les prisonniers ak xeex ñi nga xam ni pour ñi nga xam ni Macky Sall leen a rey de vingt-quatre personnes donc les gars encore une fois nañ ci dolli yokku cere dollu ñeex le combat continue on lâche pas l'affaire bu ñu ko bàyyee dee bu ñu reculer dee bu ñu noppee dee bu ñu gëmmee dee bu ñu arriéré dee lu ñu fi dal lu ñu dal rek bu boobaa ñun la kon nag gars yi suba na gën a intensifié wu encore une bu dee tey 10 pour cent lañ ko yéegal suba dañ ko war a yéegal ba 25 pour cent degré bi dafa war a def 25 pour cent thermomètre bi 25 pour cent balaa ñoo yegg nag trois 4 jours ba cinq jours day doon 100 pour cent bu boobaa thermomètre bi day exploser kon nag gars yi fu ne pour l' instant région yi nga xam ni tàngagul nañ gën a tàng na gën a tàng na gën a tàng Tamba 45 degré dans l'ombre na gën a tàng na gën a tàng Kaolack Thiès Dakar Ziguinchor et cetera et cetera Touba Mbacké Fatick Podor dëkk yi nga xam dëgguñ leen nañ yéegal thermomètre bi na gën a tàng parce que ñun tam dañoo war a libéré wu Mali libéré wu na Burkina libéré wu na Tunisie libéré wu na euh, Égypte libéré wu na. Euh, euh, Algérie libéré wu na euh, Burkina libéré wu na kon nag gars yi encore une fois euh, nañ ci taxaw gën a jëmbal gën a jàmmaarloog ñoom defanteeg ñoom mu saf sàpp en tout cas armement yi ñu yor moom sophistiqué na surtout surtout cocktail molotov ak peinture molotov ak poupe molotov ñoo yu am solo lañ poupe molotov cocktail molotov ak li nga xam ne mooy peinture molotov kon butéel yi nañ ci def ay peinture wala ñu def ci goudron wala ñu def ci ay liquide yoo xam ne bu ñu ko dóoree seen oto yi day tasaaroo donc yooyu yëpp muy puub bu dalee day tasaaroo day day yàq puub molotov cocktail molotov huile moteur molotov ak li nga xam ni moom mooy euh, gasoil molotov wala ñu def ci lu ñu naan goudron molotov loolu lépp ay molotov la ay cocktail molotov la cocktail la rek cocktail mélange cocktail molotov lu tàkk cocktail molotov donc loolu loolu rek mooy donc cocktail molotov day molotov saf na am na solo puub molotov buñ ko fàtte c'est pas rigolo am na puub puub molotov boo amul cocktail molotov wutal puub molotov loolu wala nga wut nga ubbi sa foos tànk ba mu fees tepp tànk ba mu fees saw yaa ngi fa puub yaa nga fa lépp nga fa nga tànk ci ba mu fees yooyu yomb na sa foos rek ngay ubbi wut sa kopp wut sa gan di sotti di sotti butéel yi fees dell mooy ñëwee indi lu mu dee dee dee gars yi jàpp nga ne 30 butéel 40 yooyu nag du dem yooyu ci biir Euh, oto yi lay dem oto yi lañ koy largué ci seen vitres yi mu tasaaroo puug bi tasaaroo wala saw bi lépp tasaaroo foofu noonu donc lu waay am parce que dañuy xeex lu waaye am romb ko rëccu la dingat ko tëccu la bañ bañ xëccu la lu waaye am dañuy xeex lu waay forsànnil lu waay forsànnil xeer briquet almet pneu essence taal cocktail molotov day molotov essence molotov goudron molotov peinture molotov lépp yat molotov briquet molotov brique molotov lépp yat yat yan lépp briquet bañ briquet lépp bañuñu dara lu ay for rek bum nay tàkk nay tàkk jëppeet kon gars yi encore une fois merci big up on la le combat information bu ñu am rek dinañ ko indiwaat jox leen ngeen nekk à jour kon comme nee na Macky Sall nee na mooy xeex ak ñun bàyyeegul kon ñun nag ñun tamit ñu ngi wax Macky Sall euh, sa réunion tay bi ko boucler di la wax ne ñun tamit bàyyiwuñu loo bax ñu ngeer ko te foo nee naam ñu ne fa Macky loo bax ñu ngeer ko te foo nee naam ñu ne fa foofu laa yem ak yow le peuple souverain dinañ régler seen compte ñoom ba mu mat sëkk sëkk sëkk Voilà. One love, guy. À demain, on continue le Big up, Serge Soldat. One love.